ko naan le chef de l'état warul ab ay couleur mhm. te yow nga ne euh, candidat nga à l'élection présidentielle mhm. euh, est-ce que yow da ngay adopter euh, cette dynamique des assises nationales de 2008 bi nga xam ne dafa ne woon le président warul nekk président de parti boo accéder à la magistrature suprême da nga war a démissionner du poste de président de ton parti pour éviter euh, cette politisation à outrance euh, des institutions de de de l'État euh, gis nga fu mel ni euh, sax ministère des Finances euh, weer yi la ñu revenir à l'orthodoxie un nom politique nekk fa mais durant tout le régime du président salle ce sont des politiques ñoom lañu ñu teg ministère de finance même boo politique dañ lay forcer nga dugg ci politique def euh, li nga xam ne euh, moom mooy sa sa rentrée politique. dañoo amagul njiit yu ñeme def loolu rek mais tey ñëpp ñi nga xamante ne dañoo ànd ak yow li tax ñu ànd ak yow dañu gëm ne li ñu bëgg yow mën nga ko def donc ci biir ànd boobu ànd bi fan lay yem bis bu ñu demee ba fal la donc ki mën a jiite mooy celui qui a cessé d'exister on ne peut pas servir tant qu'on ne cesse pas d'exister et exister mooy nga am ay appartenance am nga famille am nga lii am nga lii moo tax ñiy defar réew mooy ñi nga xam ne dañoo bokk ci askan wi te takkuñu si askan wi dañ ci bokk mais takkuñu si parce que booy def chemin bi pour aller vers le pouvoir ak soo demee ba am pouvoir bi ngay dellu si waat ñaari nit yooyu bokkuñu mais différence yi lañ dul def mais donc yow da ngay nangu boobaa tey bu ñu la defoon njiitu doo nekk président de parti kay day waaw ah, loolu da ngay démissionner du poste de de président ah, du parce que yow yaa njaboote ñëpp. waaw ah, yow comme li may wax ci idéologie bi naan autant de sénégalais son le président de la république le président de la république et autant de sénégalais moom mooy garab gi nga xamante ni keram ñëpp a ci war a nekk.